salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nuy seetaante di nu déglu ñoo ngi dellu ci sunu jataay bi nu baaxoo ànd ak yéen fii ci sunu 24 actu ci sunu émission bi nu tuddee madinatu ilmi ñu koy am ak yéen ayu bis ku jot te ji ñu dellu siwaat ngir fas yéene waxtaan ak yéen ginnaaw bu leen sante lu bari ñaanal leen yàlla defal leen sutura ak teraanga yàlla jéggal leen te jéggal nu di dénk sunu bopp te di leen dénk ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a yëkkatiwaat tey mu jëm ci ñun ñëpp muy kàddu yoo xamante ni kàddu yi dëggu nit ku dëggu maanaam nit daal leen koy doyee su ne nit nit la mooy li tax ñu xam ne nit la mooy nit ku dëggu ci waxam dëggu ci jëfam dëggu ci kàddoom ku nekk nag xam na ne wax dëgg ci sunu réew mi dafa mel ni dafay bëgg a jeex wala ñu néew a ko fi dese la woykat ba doon wax ne ña dooni piir ñëpp dem nan fals yi rek ci des tout wala boog tuuti rek ñoo ci des waaye original yi moom dem nan bokk na ci suñuy wax ñu war ko natt ci waxi yàlla sunu borom subhaanahu wa moom mi nga xam ne ay léppam ay waxam jépp dëgg la ku gën a dëggu yàlla ay wax amul yonante bi sallallahu alayhi wa moo topp ci loolu mooy ñaareelu tuur bi moom mi nga xam ne sunu borom moo nu ko tànn yónni nu ko ak beneen yonante bu mu mën a doon yonante du wax lu dul dëgg kon képp kuy jotti lu risaala war ngay wax dëgg ndax mooy tax sa risaala boobu mat yonante bi salaa salaam sunu boroom nee na wa maa yantiqu anil hawaa du waxe mukk bakkanam gis nañ ne dëgg sunu borom kaddu yi nga xam ne wala turam yi gis nañ ne turu dëgg am na ci te lépp sunu boroom dëgg la waaye xanaa al xaq loolu moom dëgg la mooy tur bi gën a màgg bokk na ci tur yi sunu borom tuur yi nga xam ne tur bu màgg màgg la suñ borom sax daf noo dëële ci ngir ñuy waxante dëgg ak di ko jëfante ak di waxante dëgg ngir di jëfante lépp loo xamante ni dëgg la ndax sunu borom daf nu ko dëël wala mu digal nu ko watawaa saw bil xaq watawaa saw bi sabri loolu sunu borom dane ñu dénkante dëgg ak di muñ saxaba yi bokk na ci saar woowu saar la woo xamante ni sunu masaana waxtaan bay tàggoo bay dem faaw ñu jàng ko ñoom ñëpp imaamu saafi nee na bu fekkoon ne alxuraan wenn saar woowu rek moo ci wàcc dañuy jàpp ne waa saar la wu mën a régler problème yi nga xam ne moo am yépp ci àdduna ak àllaaxira kon nit kii lii tax ñu mën a nangu ne ab jullit àqan la sax mooy jullit buy wax dëgg man ngaa doon jullit waaye jullit buy wax dëgg boobu la sunu boroom soxla aw tur nag bokkut maanaa maanaam nit ki bu ne ab jullit la loolu aw tur la bu tuddee turu jullit loolu aw tur la waaye li tax ñu mën a xam ne jullit la mooy muy wax dëgg muy dox ci dëgg dox ci dëgg nag dara paasewul nga koy wax ak di ko jëf wax ji moom mi ngi tàmbalee ci ginnaaw bi nga tuddee baati seere yi xam ne yow ko seede nga ne yàlla mooy buur yonente bi salaa salaam ndawam la laa ilaha illallah bi nga xam ne amul benn buur boo xamante ni des na ko jaamu ku dul yàlla sunu borom loola bi nga ko waxee lii tax nga dëggal ko mooy ndigali sunu borom yi nag da koy def boo defee ndigal yi danga xam ne li nga waxoon fii kat loola dëgg la ci yow sunu borom bi mu nu bindee nga xam ne dafa bind ruu yi te bindagul yaram yi def leen a woo ñun ñëpp ñu wuy ku ci nekk loola boo gisee bu ëllëgee mu ni vérifié waat tegaat nu sariya def ni vérifier ndax bam ne balee ndax balee googu ñu waxoon ndax ñu ngi koy vérifier ñu ngi ciy continuer wala déedéet xam nga ni ñëpp ko waxoon waaye ñi dut jullit dañoo mujj weddiwaat moo tax suñu borom rëddal na la ngeen waxoon nag ndax loola moo continuer ci yéen wala génn ngeen te ay jàpp naa ne ñu bare bare bari ca lanu waxoon euh, jàpp naa ne lu ca bari deñ na ndax bu fekkee dañ ne nañuy dénkante dëgg te nit ki mën a wax lu dul dëgg kon dénkante dëgg salaahu salaam ne yéen li tax ngeen gën wala alxuraan ne kuntum xayra ummati noxrijat li naas taamuroona bil maxrufi wa tanhawna anil munkari li tax ngeen gën ci xeet yi mooy da ngeen di dénkante aw yiw lu baax ak di tere lu bon jàpp naa ne ne dénkante lu baax dara gënu cee farata wala dara gënu cee nekk responsable wala dara gënu cee baax di wax dëgg dan ñi nag na ku nekk defar boppam defar sa bopp yar sa bopp ci dëgg ku nekk la war waaye rawatina nag képp koo xamante ni mën nga koo def def ko ci sa njaboot ndax ëllëg dañ lay laaj sa njaboot gi noo leen doon yare ndax ku nekk sàmm la te sàmm bu nekk den ko laaj nan la doon sàmmi bu nu demee ba ab sàmm nag mën a ruural di ruural ci biir gàncaxam biir toolam mu ruural ci doom bu bàyyi ma nee taxaw ni doom ñu dikk di ko seet mu ne ko nee dama génn sa jabar nekk ci kër gi nit dikk di la seet mu ne ko bu dikkee nee ko nekkuma fi wala nee ko dama génn ñu dugg ba ci sa biir dikk ne la nijaay wala papa am na ku lay seet ku mu doon ñu ne ko ah góor gu sol benn xaftaan la de wala benn ki wala benn caaya wala benn simis benn ki mu ne ko nee ko dama génn day laaj rek wala koo xamante ni da ko yoreel bor sax amaana moom ñaan si wut deful dara waaye dafa dikk ci yow nga koy làqatu loolu yaakaar naa ne ñàkk wax dëgg te dëgg moom dañ ne du wàññi wërsëg du gàttal aw fan dëgg du wàññi wërsëg du gàttal aw fan doomu aadama ji kon na sax ci dëgg mu wéet ak mu wéttaliku kon nag nit ku nekk war nga yar ci sa bopp nit ku dëgg ñëpp la baax nag waaye rawatina kilifa ku yor responsable su ma nee kilifa kilifa diine gi bokk na ci muy imaam bi muy ki nga xam ne kilifa diine la. ak ki nga xam ne responsabilité la yor kilifa la fa mu nekk kooka dëgg rek lañ koy xoole place ban ko teg dëgg jàpp ne lan koy defloo mën na ko te bu jiitee nit ñi dana leen jiite ci dëgg waaye du jiite mukk ci nit ñi lu dul dëgg nit noon la war a mel noonu la xaar ci moom salaaw salaam ne jikkoy naafeq de ñett la jikkoy naafeq ñett la salaasa mooy ji naafeq su waxee dana fen dana fen xam nga am na ñoom bànneexu fen dafa neex ci ñoom même bu doon dëgg sax wax lu dul dëgg bu leen laajee ci mbir wax lu dul dëgg di nga gis koo xamante ni di jënd lu seer wala mu lewee ko lu seer boo ko laajee sax mën naa àgg ci ne lii de dan ma ko may wala kenn ma ko jox am na ñoom dañuy àgg naa fansiyee ma ko jox wala ñu tuddi kilifa gu mag ne moo ma ko may te fekk na amaana kooku xamu ko sax nee na jikkoy naa fekk lool la bu waxee fen buñ ko wóoloo ci mbir mu war bu dëlee war ku mu joxante rendez-vous ne la di nga heure sàngam bu heure ba jotee doo ko gis heure boobu daf lay war moo tax nit ki dafa war a dëggu ci ay waxam dëggu ci jëfam am na ko ma sa wax kilifa gu baax sëriñ Cheikh Amadou Mbacke ne ko Mbacke yow de loo wax def ko mu ne ko lu ma wax de du lu ma wax def ko loolu yàlla rek ko man waaye lu ma wax nar naa ko am na ñoo xamante ni la ñuy dëli ko ñoom dañ koo narut dañ koo kilifa bu manee dikk ñu woo ko téléphone mu ne ko jëlal téléphone nee ko nekkuma wala ne ko damaa génn ku nekk xam na ne téléphone mën ngaa woote waxtu wu nekk du waxtu wu ne nga mën a wuyu waaye ki la woo boo noppee war nga ko mën a woowaat jamono bi nga féexe waaye damaa génn nekko ko daa génn wala nekko dafa jàpp wala ñu mën laa woo nga ne damaa nekk aw yoon damaa bett maa ngi nii ndakaaru de fekk ne yaa ngi tuubaa sa biir kër ñu wooye la ndakaaru nga ne maa ngi nii Casamance de léegi laa fi ñëw xam naa suñ mbir ye bu ma ñëwee mën a wax lu dul dëgg loolu day daane société day daane léppi société lay daane day daane diine day daane société day daane wàllu social day daane lépp ndax mbir yépp ñu ngi ko tënk nag ci ay kàddu ay kàddu soxna sin lay may sax ay kàddu moo ko may ay kàddu kàddu yu dëgg ko may soxna si ngay tas sax dugg ci lislaam sax ay wax la kon sa wax bu fekkee ne li lay dugal ci lislaam mën na la ciy génne mooy kàddu yooyu nga waxoon ay kàddu yu la mën a génne ci lislaam mën na am kon kàddu yu dëgg moo la ci dugal waaye kàddu yu ñàkk a doon dëgg moo lay génne ci lislaam anamook diw sàngam nga mën a taxaw di labat as soxna ñu naa la dina la ko may soxla sa naa la bëgg naa la bëgg naa la ba benn bis nga xëy dégg ñu ne soxna sa dañ koy maye tey loolu mën naa yàq nit mën naa yàq awa niiru nit am na ñu xaru wala ñu àgg ci leneen lu bokkut ak loola ñoo xamante ni yooyu moo leen ko def nan nga mën a dige nit ne ko de bu ma jotee dàngam sàngam dinaa la ci jox nangam wala dinaa la defal nangam loola nga jot ca mel ni ku xamatut mënatulaa woo téléphone jot la mënatulaa gis la nga ko waxoon loolu yaakaar naa dara dara àdduna jëru ko dara dara àdduna jëru nit ki di weccoo kàddoom ak alal alal da ko fi wacc ab juddu da ko fi wacc waaye kàddu daf lay topp ba ci sa biir bàmmeel lay topp ba ci sa biir bàmmeel nit ki nag gisuma lu ko war a gënal kàddoom loo xamante ni moo ko war a gënal kàddoom amul kàddoom rek la am nit kàddoom rek la am surtout as gor surtout nit koo xamante ni as gor nga sa kàddu rek nga am loolu nanga kuy jomb ak kuy jomblu moo ko xam waaye koo xamante ni jomblu woo jomboo loolu ku ko def rek lu la neex defal lu la neex waxal waaye ëllëg yu yemal xiyaam di lépp rek suñ borom di nee na inna wax dallaahi xaqan lu neex defal waaye di dajeek moom bis bis di nga dajeek moom kon nit ki suy wax na wax dëgg addis yi sax li tax ñu dajale ko ba tax ñu sukkandiku ci sunu wàllu diine boroom xam-xam yi ko doon dajale dañoo wax ne képp ku nu mas gis nga wax benn baat boo xamante ni baat bu du dëgg la maanaam ñu baal ma ci kàddu gi fen bu ndaw la ñoom duñ jël sa addis ndax lala tënk ba nga def loola wala loolu nga ko mooy tax dootuñu wóolooti ci sa mbir dara dara dootuñu ko wéeru moo tax gournement bi ak képp ku ñuy jël war na noo ni ñuy vérifier nan vérifier nit ki ba xam mën naa wax lu dul dëgg loolu jar na kenn bañ laa fal dara dara surtout waxtu wi ñuy fal ay ministre loolu jàpp naa ne képp kuñ ci xam ne mas ngaa wax lu dul dëgg ñu seet ko war nañ laa mën a bañ a fal ndax nit ñi dañ laa tegaat seen kaw comme bi nga amagut benn responsabilité nga daan wax lu dul dëgg naka moog boo demee ba yor responsabilité tiim ñu bare bari ci seen kaw nga mën a wax mu deñ ñu mën a àgg cim réew kilifa gu mag a mag ku ñëpp xam wala ñëpp mu mën a taxaw wax waxaat daal ne ma waxoon wàqet ma waxoon wàqet yaakaar naa ne dara dara jaru ko dara jaru ko te ku seetlu nag baat yooyu dina tax gor yi gor yi ñoom ñu bàyyi la gor yi xawma ñu la dut bàyyi waaye jàpp na ne gor yi mën na laa bàyyi parce que am na baat yoo xamante kenn du ko kafe kenn du ko kafe fi ñu toll wocc wocc naa la kenn du ko kafe te baat la boo xamante li tax duñ ko kafe day baatu dëgg fase naa la kenn du ko wax sa jabar moo tax ñu ne ñett kenn du ko kafe kaf ne di lekkantu kenn du ko def ba ngay regg doo ko yëg kaf di wane ne dama fase sama jabar kenn du ko def ndax boo ko defee sa jabar tas na moo yooyu kenn du ko kafe sa doom ji nga xam ne da nga koy yar danga nga ko war a yar ci dëgg ak lu mu metti metti nga yar ko ci dëgg sa soxna si la may nga yar ko ci dëgg nan nga mën a def sa téléphone nit di la woo nga gis numéro nga bañ ko wuyu ñu tase nga ne ko euh, nu mu tuddati bi nga may woo daa fekk ma jàpp wala joxaat ma sa numéro dafa supprimer wu wala téléphone bi ma yoroon dafa dañ te yi ngay wax yépp boo loo xam ne dara du ci dëgg nit dikk diis la soxlaam nga ne ko waaw damaa am ngénte kat kañ la ngénte li nga ne ko talaata mu ne la bu altine ci ngoon na nga ñëw wala dimanche na nga ñëw ma lijjanti la xar mi mu ñëw dimanche gisu la altine jot mu ñëwaat gisu la ban ne suba la ngénte la mënulaa gis kooku loroo ko lor nga ko te wax ju du dëgg nit ki nan la mën a def di jënd suy jënd fas yéene wax kiy jaay lu du dëgg mën a taxaw waat ci yàlla ne lii original la te lam koy jaay du original mën a taxaw barki suñ nangam portable bi original la te fekk ne du original yow mi koy jaay xam nga ne man a waat ci yàlla ne nangam laa ko jënde boo ma joxee nangam boo ma tegalee nangam ma jox la loolu yonante bi salaa salaam dana képp koo xamante ni moo koy def du am barke ci njaayam koo xamante ni balaa jaay waat kooku du am barke ci njaayam moo tax yenn nga gis kuy jaay commerçant buy jaay xaalis bi bari lool ñu jëkk-jëkk ak lakk jaar fa lakk jaar fa mooy ñàkk barkeel ñàkk barkeel te waxoon naa ko léegi yonante bi salaa salaam nee na wax dëgg du wàññi wërsëg du wàññi aw fan du wàññi wërsëg du gàttal aw fan kon nit ki loolu mooy kii kilifa nag li ci baax mooy wax dëgg sëñ Tuubaa am na ko mas a dikk mu laaj ko ne ko ana kilifa sàng mu ne ko ma nga fay naqari deret mu ne ko loolu de du sikkas kilifa kilifa liy sikkam mooy ñàkk njariñ ak ñàkk wax a dëgg ñàkk wax njariñ ak ñàkk wax dëgg loolu nag yàlla na ko yàlla musal ci kilifa kilifa gu mën di doon muy kilifa diine ak ku diine wax dëgg nag da nga ko war a nangu bu dalee ci sa ak bu dalu ci sa kaw nit koo xamante ni mën ngaa taxaw wax ñëpp dëgg waaye ku la wax dëgg nga meer loolu moom duñ ko tuddee xamuñu nun koy tuddee luubu te xanaa ak pànk wala fi waxee nit ku pànk nga daal mën ngaa wax dëgg waaye ku la wax dëgg nga mer day sama moroomam lu tax moo koy wax ak nangam mën nga cee bàyyanteeg nit sax ngir ñàkk wax dëgg waaye jàpp naa ne loolu moo gën ñaar ñuy ànd te ànduñu ci dëgg bàyyante moo gën ñaar ñu bokkut fu ñu jëm di ànd guddi ak bëccëg am na ku ciy nax morom mi am na ku ci nekkut ci lu leer waaye ku nekk ci lu leer lu leer rek ngay def moo tax yonent bi salaahu salaam Seydina Omar mas naa pañe xusayfatul yamaan ne ko xusayfa ndax man ci naafeq yi laa bokk mu ne ko bokkoo ci de waaye duma ko waxaat kenn Omar mooy amiril na yonent bi boole na ko ci fukki yi dem àjjana al asaratul basara waaye loolu lépp taxut mu wóolu boppam. kon nit ki li gën a riis ci moom mooy ñàkk a wax dëgg dëggu mooy li gën ci moom ndax dëgg du ko xañ dara te loolu day tax nit ñi ñeme la ay koo xam fu nu waxee ñu ne ah xanaa du diw sàngam xanaa du nangam sàngam loolu ku dem ba àgg ci sam réew nit ñi di la xoole bët boobu maanaam yow ku dee nga ba noppi di dund. Musaymatul kasaab de li tax ñu tudde woon ko noonu mooy dafa mënoon a wax lu du dëgg. képp koo xamante ni ni yaa ngi wax lu du dëgg yaa ngi musaymatul kasaab da ngeen a wuute aw tur rek waaye sa tur sa jëfin benn la yéen a bokk jëfin kon mbokk yi ñu ngi taxawlu fii di wax ne jataay bi xañ na ñun ci yéene woon ak bëggoon ko ko traité xañ na coupure yi doon am ak yooyu tax na mënuñu ko kii waaye ñu ngi jéggalu lépp lu ci dëng ñu ngi ko jéggalu Baye Sall moo nekkoon ci caméraman bi soxna Awa moo ko réalisé Awa Ndiaye soxna Khady Niang nekk ci montor bi ñu jox leen daje ci yeneen i jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu murtajan minnatun lana jariun